bi ndax mook bona sax danañ fa mën a feggoom ak it kan moo cay départ waaye moom Aliou Cissé la mu leen tontu mooy loolu da ngeen di bàyyi ba ca maxi kamay départ loo kama du départ loo danaa ko xam kon moom Aliou Cissé kàddu yooyu la dal di yëkkati ñu jógee ci record yenn kaay ñëw ci stade yenn kaay moom nag Edouard Mendy ak Karim Benzema la fasal ci bu mag a mag la te ngay liggéey bu baax a baax ca Real de Madrid kon daal Edouard Mendy moom ak Benzema seen match du yomb ñoom nag daje woon nañ waaye it Chelsea moo ko dal di éliminé te it Chelsea mooy champion ndax moo jëloon coupe ba ñu jógee ci stade yenn kaay dem FC Espagne wàcc Barcelone fekk fa sport moom ñoom nag ñooy daje Ligue européen match yooyu nag le 7 avril la aleya bi di am ndaxte Barcelone mooy njëkk a Francfort journal bi nee leen yéen yéen am chance francophone ndax yéen a gën a nekk favori kon daal yéen a ko war a toogloo daal leen ñoom nag lay seen bëgg-bëgg mooy jël ligue européen bi yóbbu ko ca Barcelone ñoom nag mosuñu koo jël ñu jóge ci sport daal dem Madrid fekk fa AC yéene moom naka waa ligue des champions bi dafa sat ci xadu njëkk Real de Madrid Chelsea Manchester City Atlético de Madrid ba yaa xam ne Villarreal Liverpool ak Benfica match yooyu nag dana métti trop waaye Chelsea moo nekkoon champion ba ndax Chelsea moo ko jëloon waaye it waa Real Madrid ak waa Atlético Madrid ñoom la ñu bëgg dal di dajee mën naa ne ndax Real Madrid bu dumaa Chelsea Atlético Madrid duma Manchester ñoom ñooy dajee te ñoom nag la ñu bëgg mooy fala bu da mënunta ñàkk maanaam kenn ki dal di toog ca Madrid ñoom nag loola mooy seen bëgg-bëgg kon nag ñoom bu ñu dajee match bi dina métti trop ci diggante Real de Madrid ak Atlético de Madrid ñoom nag lay seen mooy ñu dajee

am journal bi ñëw na ci kookee di Diego Simeone moom mook Guardiola daal ñuy xëccoo quart de finale ba kon daal dana métti trop ci diggante Guardiola ak Diego Simeone ñu ñëw ci Marca yéen kaay moom nag ba tey ji Real de Madrid ak Atlético de Madrid la fasal ci xadu njëkk ñoom nag lay seen bëgg-bëgg mooy ku gagné ca quart de finale ya Atletico de Madrid ngay xaar ak Manchester City bu dee Bayern ne Munich ak ak Benfica kon ngay xaarante ñu jógee ci Marca yéen kaay dem ci La Gazzetta dello Sport Rodrigo la fasal ca xaduña ka moom nag xam ngeen joueur Chelsea waaye nag contrat dafa dal di moom nag day signé foofee ne ca Juve Juve mooy Juventus moom nag daanaka jubóo nañ ci lépp gone ca Juve moom nag saison bii di ñëw ci tout sport Dybala la fasal ci xat bu moom Dybala nag jamono jii jege na trop des ca yuufe wala it jege na trop pour génn ci yuufe moom naka azam lundi lay dem foofee ca biir Italie ca biir yuufe ñu dal di séq aw waxtaan yaatu waaye moom di balaa nag bëgg-bëggam mooy dal di des foofee ca yuufe waaye it nee leen daal bu mu mënta des ci yuufe bëgguma génn champion Italie bi kon nag jege na trop pour dem ca Inter de Milan ndax ñoom Inter Milan lu ne ñu ngi koy def pour bëgg a récupérer gone googee di di balaa ñu jóge ci jamono ji jóge ci moom la gën a jege mu toog fa waaye it Inter ñoom it niwuñ ne yàcc na yasar ci gonek Arsati googee di Dybala ñoom daal jamono ji lay seen bëgg-bëgg mooy andi ko foofee ca Inter mu doxal te it ñoo ngi xaar max yu nar a metti ndaxte AC Milan Juventus Inter Milan ñoom naka ñooy xëccoo ca kaw waaye it max ba dana dal metti torop ci diggante Inter ak AC Milan ndax ñoom ku ca ñàkk rek tey ji max ba da nga wàcce Mourir Delo Sport moom nag Thomas Tuchel la fasal ci xam na xam ngeen ne Chelsea dafa am ay problème ak waa Chelsea ndaxte xam ngeen ne Chelsea dama ne ji ka leen daa tàggat président Abramovich dafa am ak ñoom problème kon daal Thomas Tuchel moom jël na ay kàddu nee na Chelsea gii doo fi jóge ndax Chelsea équipe bu la te it kooku jël na danaa man a nekk ak yow nekk fi di doxal moom. Thomas Tuchel lu la dal di fasal kon nag waa Manchester United nañu waajaat te xam ne Thomas Tuchel moom dafa dal di dem waaj yi ngeen gis nag moom ko am am la moom nag ci immobilier lay daal la mu bëgg mën na ne ndaxte nee na Chelsea gii ku am xaalis ku wala kenn bu ko jëndee daal danaa fi nekk ak moom ndax Chelsea équipe bu mag la tey du ma jógee ci Chelsea di dem feneen kon daal waa United moom nañu waaj te xam ne Thomas Tuchel du fa dal di ñëw ñu ñëw ci kookee di club moom nag mooy tàggan waa Liverpool moom mii di Jürgen Klopp waaye it Alex Abdirie moom nag doomu Angleterre la dafa dal di blessé Jürgen Klopp nag démb ba muy jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi nee na leen kookee di Alex Andria moom naka du football semaine yi yëpp dana toog ñetti semaine daal wala ñeenti semaine du mën a dugg ci terrain football kon nag waa Angleterre ñoom gone gi dafa dal di dem ca seen barrage yi nga xamante ne moom la ñu war football dem def football yi ñu ñëw ci Cristiano Ronaldo ak moom Cristiano na ay ndogal nee na Manchester United fa lay dal di toog kon nag United daal nañu gëm ne kookee di Cristiano Ronaldo moom du fa dal di jóge moom Ronaldo moo ko dal di xam ne waa Espagne it ñoom seen liste ba nga xam ne génne nañ ko Dexe yaa néew ca wuñ ko te Dexe yaa nag doxal na bu baax a baax ci saison bi kon daal Dexe yaa moom.

mooy delluwaat ci FC Barcelone waaye it waa Barcelone dañ ko gàntal ñu ñëw ci Aubameyang moom mi nag doomu Gabon yi africain bu mag la waaye nag ci FC Barcelone fa lay war a dajee ak Real de Madrid ci laa bëgg daal dugal ci sama bii moom nag loola la dal di bëgg waxoon na ko ca Galatasaray def na ko waaye it waxaat na ko ci clasico ba kon nag ñu koy xaar suba jàmm ci diggante Real de Madrid ak FC Barcelone ñu ñëw ci arbitre yi nga xamante ne ñooy arbitre match FC Barcelone yi ak Real de Madrid waaye it waa Barcelone yi ña ngay xeex ndaxte ne nañu ñaari arbitre yi yëpp ñoom ay merengue maanaam bu waa Real de Madrid la faral ñoom Barcelone nag ne nañu arbitre bu ci jàdd yoon daal danañu lay yóbbu ca taas wala FIFA ñu dal jël ay ndogal ci yow kon sama gars yi fii la yëf yi buuree ci kanam tuuti ak yeneen xibaar abonné leen loolu mooy dooleel chaîne bi jaa